bëri pexeek tànk bu gudd ak barke xooleek alal du tee ñu xëy xam-xam bu rëy ci yàlla mbaa ci duniyaa la fegal bàmmeel yaak laajteem yaam bismillahi rahmaani rahim asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki Sénégal mbokki àddina bi dellu si waat nañu di àndaat ak yéen ci seen émission bii di axiru zaman di jaajëfal ñi seetaan ñépp fu nu manti nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew di ñaan sunu boroom subhaanahu wa taala mu defal nu dégg ak topp defal leen ko di fas yéene waxtaane tey ci aaxiru zamaan bi juróom-ñetti jigéen ci biir juróom-ñett ñooñu ñu jël ci kenn koo xam ne nii dana dajale mbaaxu walla jalooray juróom-ñett ñi ci jéem a jaar ci seen tànk lu waral ñu tànn tey waxtaan wii mooy weer wi weer wi nu ne di weeru mars mooy weer wi nga xam ne jël nañ ci bis jagleel ko jigéen donte bis bi du lislaam a ko yëkkati jagleel leen ko ci waxin waaye nag bis bu nu jagleel kumu ci réew mu mel ne Sénégal war nañoo mën a jël bis boobu noonu le jéem a seet luñ cay jël ci mbaax fàttali ko ñañu jagleel bis ba ngir ñu man koo Euh, roy ngir am lu baax loola waral le 8 mars fu mu jotee bi ñu dooree di waxtaan ak léegi dul ci daayira ba di jataayu lislaam wala yeneeni jataay yu ni mel daan nañu jël ay thème di jàngat jigéen laata lislaam di ñëw fan la ko fekkoon nan lañ ko yore woon tey ñiy jóg naan dañuy jox droit jigéen droit de la femme di takk rajo yi di wàcca ca ci ñu wax leen ne yéen fan ngeen nekkoon bi ñuy jël jigéen di gas di suul rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi muy ñëw madinatul munawara wala màkkatal mukaram yàlla di ko yónni foofu la fekkoon jigéen wa idal su suilat bi ay zanbin qutilat boo amaan doom ju jigéen li ngay xalaat mooy jël gas ba mu xóot nga suul ko loolu la ceet doga daan def bu sa soxna wasinaan ñu la sa soxna si de am na gan nga ne tudd wala lum doon ñu ne la jigéen la dangay mer di foo ñóoral toute la journée zalla wajhuhu muswadan wa huwa kadim yatawaara min alqawmi min suui ma bushira bi ayumsikuhu ala hunin am yaddusuhu fi turaab ala saa ama yaxkumuun ala saa ama yaxkumuun ala saa ama yaxkumuun buur bi subhaanahu wa taala nee na bi rasulullahi ñëwagul moom mi honoré jigéen moom mi yëkkati jigéen moom mi jox jigéen ay droit am yiñ ko xañoon ànd aki devoir am yi nga xam ne mooy tax mu ami droit am moom rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laataa muy ñëw ceddo gi buñ amaan doom ju jigéen toute la journée sunu borom nee na seen kanam yi dafay ñëgg ñu mer ngir lan doom ju jigéen lañu am te dañ na doom ju jigéen dalay gàccal lan la xalaat mooy gas ba mu xóot ñu suul ko mooy li ñuy wax sorangal ci wolofal ci wolof sorangal gas ba mu xóot nga suul ko muy dund doom ju jigéen ji wala nga téye ko di ko toroxal ba mu faatu sun borom ne tuug yéen a bon ala sa ama yaxkumuun bon na lool ni ngeen jàppee jigéen atte bii ngeen teg ci kawam bon na bi lislaam ñëwagul fii la fekk jigéen ñuy gas di suul di jël di jaay ni ñuy jaayee xarum tabaski noonu lañ doon jaayee jigéen da jël rek yóbbu ca marché ba góor ñëw tànn bu ko neex jël yóbbu lislaam bi mu dikkagul bàyyi daan yor ay soxna yu bari faatu doom ja taaw ba donnu soxnay baay ja yëpp mu donnu leen bi lislaam ñëwagul ak yeneen yu bon yu ñaaw yuñ doon teg jigéen jigéen nag lislaam a ñëw jële ko ca marché ba fekkoon ko ñu koy jaay mu solal ko yére dugal ko ci biir kër gi sangu ko solal ko yére ne balaa kenn am accès ci moom da ngay joxe ñeent ak trans seede day am nga dem ci kilifaam ñu soog di la ko mën a may jigéen bu njëkk bu bàyyi faatoo du donnu dara doom yi góor yi rek kay donn mais moom du doon donn dërëm lislaam ñëw ne bàyyee ko jur bu faatoo day donn gannaaw ba la ñenn ñi ñëw bi ñu tardé yëg ne dañoo tardé seen maam ya tardé loon jigéen ñoom ñu tardé ginnaaw bi ñëw ne waaw lislaam dafa xañ droit ay jigéen yu bari ba tax na léegi dañuy jóg ngir woote ay droit pour jigéen ñoo ko tardé ñoom de seen maam ya bi lislaam na jigéen nañ ko jox benn góor ñaar ci miraas ñoom ñu ñëw ne loolu euh, justul jaaduwul du ak yemale fekk na seen maam moom dërëm daaw ko jox jigéen démb bu faatuwaan duñ ko jox dërëm te lislaam mi ne jigéen bu baayam faatoo nañ ko jox benn jox fereeram ñaar fereeram mooy takki moromi jigéenam mañ joxoon benn indi di ko dundal loolu yàgg nañ ko leeral li tax lislaam ne góor ñaar jigéen benn yow sa rakk ju jigéen ji bu doon nee bennam da koy jël fajee koy soxlaam yow nga doon sa ñaar jëlee ko moromam indi moom mi jël bennam dem ci keneen ku doon donnee ci baayam ñaar kooku lam doon donnee ci baayam ñaar ya mu bokk ko moom mi yor benn mooy dundal mooy dëkkal mooy dëkko mooy faj lislaam équilibre boobu la indi ci société bi mu tabax léegi nag bu demee ba jamono Occident bi jóg di yuuxu di takki rajo droit de l'enfant droit de l'enfant droit de la femme ba ne dafa am bis yuñ ko jagleel léegi dana baax yéey dana baax bis yooyu bu dellu see ñu delloo si lislaam fi mu fekkoon jigéen ak fi mu ko indi ba nu xam ne jigéen mënul amee yëkkatiku lu dul ci lislaam mënul amee daraja lu dul ci lislaam mënul nekk ku nuy naw lu dul ci lislaam jigéen ji gëm yàlla gëm rasulullahi nag laa wax te réew mii nu dëkkee di Sénégal jigéen ñooñu ñoo fi ëpp ay jigéenu yenent bi la léegi nag yow bul nangu doon njabootu yenent bi ba noppi Occident bi ñëw di la utali droit yoo xam ne ci biti kër yenent bi la sallallahu yow daraja ji la lislaam darajaal daraja jooju dong mooy daraja sa seeraay sa valeur moo waral mu ne sa cër sax bu mu feeñ góor gu nekk di ci teg bët muurul sàngal sa cër yooyu yëpp ngir wane rek ni nga seere la ni nga yëkkati ko léegi nag jigéen jooju nga xam ne moom la lislaam fekkoon fi mu nekk mu yëkkati ko tey am na ñu jug di takki rajo di wàcce ca fu ñu toll naan ñoom ñooy jéem a xeexal jigéen seeni droit seeni droit te la ca ginnaaw xeex yooyu yëpp mooy matt lislaam matt lislaam bu débat bi avancé rek ci féministes yi ak seen bàjjen yi nekk ci seen ginnaaw fa débat bi jëm rek mooy d'accord ma ak l'islam xam ne loolu kéefër la kéefër mooy yàlla tëralub tëral ba noppi yow nga ne jullit nga ba noppi ne lii yàlla tëral ànduma ci non l'islam dane góor ñaar jigéen benn man noo ànduma ci ah biir kër gi arrijaalu qawwaamuuna ala nisa kilifa gi ci biir kër gi góor la ñu ne noo égalité parité yamale wuñ ko rek ca liggéey ba waaye ba ci kilifteef gi ci biir kër gi góor kilifa la jigéen kilifa la yi lislaam jëloon yëpp tëral ko ñu jël sànni ci àll ba indi ay xalaat yoo xam ne ni ñu ngi ko jëggaane ci Occident ya loolu waral nag bis yu nii dañ ciy dellu si di fàttali jigéen ñi ne ñun kat bu dee jigéen ñu baax ñu nu roy rek am nañ ko lu njëkk am nañ ko tey te bu ñu woyee ba gannaaw ëllëg ñi nu am doy nañ ñu sëkk ay référence ak i royukaay moo tax tey ñu tànnal leen juróom-ñetti jigéen ki ci jiitu ci juróom-ñetti ñooñu mooy maam Adama Aïcha di yaayu maam Cheikh mar danañ ñëw ci jaloorem maam Asta Waalo di yaayu maam Jaara Buso danañ ñëw ci jaloorem maam Fawad de Wele di yaayu maam Cheikh Al Hadj Malick danañ ñëw ci jaloorem maam Jaara Buso di wéyjuru Serigne Touba danañ ñëw ci jaloorem maam kumbandooy di wéyjuru maam Limaamu danañ ñëw ci jaloorem maam Astu Jànq di wéyjuru Cheikh Al Hadj Ibrahima Niass danañ ñëw ci jaloorem waaye ñaari jigéen ñoo xam ne mujj nañoo ñëw waaye ñoom it ay boromi jaloore lañu kenn ki mooy Faatu Gay mu as Gay mu ma wax ne danañ gën a taxaw ci moom Faatu Gay mu as Gay ngir mu nekk symbole ci biir jigéen ñi ci atum ren ji yàgg naa ko jël sax ne symbole ci at yi weesu ci jigéen ñi gënu la def lu baax de mujjewu la def lu baax de am na ñu ko roy gannaawam am na ñu ko jiitu woon ëppale ko la def waaye dafa ràññeeku ci sëy bu rafet ba borom këram seedeel ko ko ci xasidaam bu rëy boobu mu ko defal ki ci mujj bu yàggul ci ñi mujje ñëw la de yàggu fee jugee de waaye marqué na empreinte am ci biir jigéen ñu baax ñi muy Seyda Zeynab Fall tudd ñii nag tudd juróom-ñett jigéen ñii ci la 8 mars bii tekkiwul na ñii rekk a baax ci senegal déedéet waaye bari na ñu baax ñu ma tuddul waaye tudd ñii ñennat la ci biir ñu baax ñooñu ngir ñu mën a déglu seen jaloore jéem a seet lan lañ ci mën a roy te luñ la tuddal rek loo ca roy ngërmandeel yàlla la lay jural te la cay gën a fes ci biir jigéen ñi ñu tudd mooy jigéen ñu sëy sëy bu rafet jigéen ñu sëy sëy bu rafet jigéen ñoo xam ne topp nañ seen borom topp seen borom kër ba jëlee ca ngër mënde léegi nag ci jamono esprit wu féministe yi esprit wu féministe yi damay dellu du ñëpp nag féministe bu mer rek yow lay waxal xam naa féministe yoo xam ne nii maa ngi discuter ak ñoom ñoo xam ne mbaax rek lañ bëgg donte ci biir discussion bi dana am point yu bari yu ma leen di joyanti mais am na ñoo xam ne duma ma mës a jubóog ñoom ndax man li may wax arrangé wu leen ñoom itamit li ñuy jéem a installé fu ma ko fekk rajaxe ko mooy jéem a tënki jigéen ñi ñàkk leen kilifa def góor ñi ñuy seen wujju di seen i morom ba tax na tout le temps le 8 mars bu dikkee dañuy jël jigéen ñu mel ni ignoré leen ndax xam nañu jigéen ñi bu ñu leen tegee ci taabal ji ñoom seen projet dafay màbb jigéen ñu am kilifa topp seen i boromi kër di jaamu yàlla yem regle muur seen i cër jigéen ñi ñu leen di tudd arrangé wu leen moo tax dañuy évoquer ay jigéen ñoo xam ne ni du ñuy royukaay ci kanamu jigéen ñii ma waxaat ko du ñuy royukaay ci kanamu jigéen ñi buñ leen tegee teg jigéen ñi ñoom dañuy suulu mais ñooñu la ñuy bëgg a jël teg leen ci kanamu jigéenu senegal yëpp fu la 8 mars jotee jigéenu talaatay ndeer jigéen yàgg naa bañ yàgg naa bañ yàgg naa bañ naka nga fi mën a bàyyee jigéen ñu nangu ñii dëkkee évoqué évoqué di ñu jël di ñu présenté di ñu tegal jigéen ñoo xam ne ni ay bañkat lañ bàyyi jigéenu nangukat yi moo tax temps bu ma déggee kàddu jigéenu talaatay ndeer bëgg leen teg ci kanamu jigéen ñu tedd ñi nag ma ne leen ah attention ah attention ay maam yoo xam ne nii bañ lu bon a tax tax ñu def lu gën a bon deesu leen jël di leen teg ci kanamu ñi nga xam ne mbaax rek lañu def waaw jigéenu talaatay ndeer dañ doon bañ lu bon dañ leen bëggoon def esclave dañ leen bëggoon a sàkku ñu bañ tax ñu taal néeg ci seen kaw yàgg naa ko wax ak sama mbokk ma Fallou Cissé ca rajo Dunia at mu nekkaan bu la 8 mars jotee dañ koy wax mu leer na jigéenu ndeer ya lañu def du royukaay ci jigéen mooy jëmmi xaru ja la ca nirul luy royukaay bu fekkoon xaruwunu mooy bañ lu bon gi bañ ku leen def loolu bon su fekkoon dañoo xeex ak ñeneen ko bëgg a def loo ba ñooña faat leen waaw kay mën nañ leen a jël di leen tudd tout le temps waaye boo jëlee rek bëgg a présenter jigéen jooju wane ne daal ku baax kaa ngi bañkat baa ngi nii te jëfam am loo xam ne l'islam daf ko ŋàññi bañ ko lool mooy xaru ak lu mënti xam xew circonstance bu mënti am l'islam du maye kenn mu xaru waaw léegi moom bañoon na ko ko def lu bon mu def lu gën a bon léegi nga bëgg a jël ko tout le temps moom nga nuy tegal ci kanamu jigéen ñii ci Sénégal mel na ñun daal maam yi ñu am yépp ñooñu dong ñoo ci nekk ñu war a tudd ci le 8 yi ci laay taxawee tout le temps nag fu ñu tuddee ñee rek man leen déet royukaay yaango tamaam yooyu kat li ci doy waar man mii di wax nii yàggumaa xam ne bokk naa ak ñoom deret de mat na fukki at ak nàngam may wax ne duñu royukaay ci kanamu jigéen ñi ba ci lu toll ci juróomi at la sama maam jiñ ma tuddee maam Maxtaar Gay la tudd ay woy juróom fa waalo la soqe ko ci la may nettali histoire histoire talaatay deer lu ma mos a dégg jigéen ña ca bokkoo nag nañ ca bokkeek na histoire ba tëddee ci laa xam ne ndekete man jigéen ñooñu am na lu ma bokk ak ñoom ci wàllu meen xanaa bu fekkoon ne damay waxee sama bànneexu bakkan ak di wut lu ma yëkkati yeeg lu ma wàccee keroog laay noppi ci gëj a tudd jigéen ñooñu ne du ñuy royukaay ndax samay maam lañ ci côté waaye tey laa koy gën a tudd ne du ñuy royukaay ci kanamu jigéen ñi daam ñoo xam ne nag li ma waxoon rek mooy dellu si waat jigéen ñi arrangé wuñ leen ñu leen di tudd bis bi du jot mukk nga gis jigéen ñi dajaloo nangam nangam ñu ci bari ne léegi nañ ñu waxtaanal ci jigéen ñu baax ñu nuñ leen mën a royee ndax bis yi ñi ko gën a indil ampleur yëpp ci Sénégal féministes yi jigéen ñi nga xam ne tey ñoo jug taxaw ne ñooy xeexal jigéen yenn ñi ñenn yenn mbir yi moo tax tout temps rek li ñuy évoqué indi ko mooy jigéenu talaatay ndeer après jigéen ju daan bañ jigéen yàgg naa bañ yàgg naa bañ yàgg naa bañ waaw la ma doon wax ba léegi rek moom laay continuer di ko wax am na fu ma bind gis ku naan waaw yow yaa ngi wax ci jigéen ñi ta xamoo ne am nañ fi ay sët xaw ma nangam te xamul ne man ci seen sët laa bokk ci côté côté meen xamul loolu man kay boobaa lu ma wax sama maam laa ko ooy la problème samay maam yooyu ci côté meen laa ne la ñu def dañuy royukaay ca loola kenn du lañ ca roy bu ñu yemoon ci bañ lu bon ci téye seen bopp bañ ku leen def loolu bon yegguñu ci xaru waa kay su boobaa ñu mën a tudd ne kat royukaay yaa nga waaye jëmmi xaru en tant que ku jàng diine xam li ci sunu borom wa mais doo jël kooku noonu la jëf jëmu jëf fa mu mujj xaru la tuddul neneen ci wolof nu dul xaru diine it xaru la ko àtte moo xam nga naan ma ca ceet doggalaak ci biir diine ji waaw léegi ñii nga jël leen bëgg a ignorer tout le temps seen jëf ci weer yi nii bëgg a jël maam mii teg ko ci kanamu sénégalais yi bañkat bañkat bañkat bañkat ci naa ci laa leen di wax na leen arrête yooyu nag léeg-léeg boo ko tuddee ay dënn di fuur ndax lan maam dañu am abiyatal jahiliya waaw tàngooru ceddo googu ak rëy gi nekkoon ci ceddo gi fa nekk ci ñoom ba tax na buñ na maam rek maam moom sunu maam yi baax yi waaw sunu maam yu baax yi yu baax yi lu baax la waaye bu amee ñoo xam ne am na luñ ci def lu diine ŋàññi ah dañuy jël nag loola diine ŋàññi teg ko ci taabal ji ne lii kat lu diine ŋàññi la ëllëg bu ko kenn roy dañ fi xewalee am lu la métti dem di taal sa bopp ci buntu pale def naa ci émission yu yaatu wane gravité bi nekk ci xaru amul benn circonstance bu lislaam di mayee xaru amul kenn du la ko génneel amul amul benn saxaaba dañu nekk ci xare xare gàddu jaasi ku nekk di xeex ñu jam ko jam-jam yu métti jam koy xeej cor ko jaasi jam koy euh, jamukaay yu bari mu métti lool ci moom bi mu demee ba mënatul supporter métit bi mu jekkali boppam jekkali boppam kii da doon xare ji de saxaaba la de yeneen bi la àndal biñ ko waxee yeneen bi ne ko diw de faatu na waaye nag dañ ko jam jam jam yi metti mu jekkale boppam yeneen bi yëngal bopp bi ne ah gaawtu na yàlla ci jël bakkanam moo tax yàlla yóbbu na ko safara xadis mhm, bu wér la dem leen ngeen liir yi dem leen ngeen liir yi yi pour wane phénomène xaru fu mu mënti jógeeg nuñ ko mënti tuddee lu bon la lu yées la dem leen nga liiri at targhib wa tarhib bu xaafadal munziri ca bunt ba nga xamee ne ci lay waxee gravité ray bakkan ba indi xadis ñëw di wax ci xaru xadis yu baree baree bari yoo xam ne day wax ci gravité xaru nga xam ne amul fenn fuñ lay mayee nga xaru yow kay li la lislaam wax mooy buñ la naree def loo lenn li exemple dañoo bëgg a ñëw jël sa alal jël sa suuf jël sa nangam taxawal nga défendre sa alal jooju noonu le bu laajee nga xeex kilo ko bëgg a def loo nga xeex ak moom soo ko rayee mu dem safara bu la rayee dem àjjana xaddis bu wér dikk na ci wala yu wér loolu la ñuy résistance boobu noonu la la diine xam légitime défense boobu noonu la la diine xam mooy bu ñu la bëggee def loolu bon bëgg a nangu sa alal bëgg a nangam da ngay xeex ak ki ko bëgg a def loo wala mënoo xeex ak moom léegi yow sa jaan wàcc na bu la ëppee doole def loola naka su dul noonu moog boroomam la yow tamit wax dëgg amoo ca benn daan yooyu nag ñaareel ñenn ñi duñ bëgg dara kenn ku ci wax dara waaye maxtar Sàdde ku ko woo ci ne ko non loolu moom bul ci wax ndax sunuy maam nangam ak nangam xamoo kuy Maxtaar Sàdde man waxuma ngir uti soppe waxuma ngir ragali noonu damay wax ngir sunu borom bég ku ci bég nag ci kaw mbégte loolu alhamdulillah ku ci bégul alhamdulillah yàlla na yàlla bég waaye sunuy maam lañ rek ba tax luñ defoon lépp baax na bu ci kenn wax loolu laa ne tappale la kenn du ma ci yóbbu heure bu nu indee jigéenu talaatay ndeer yi rek bëgg teg ci kanam maam yi ma delloo si maam yi ne royukaay yaa ngi ñoo mat roy mu ngoog loolu mat naa xam su ko defee ñu ubbee alquranul karim ci ci daraba waaw ñu dooree ñaari daraba ci alquran soog di ñëw ci juróom-ñett jigéen ñi ma tudd léegi ñaari daraba yi ci benn saar la ñëw suuratu tahrim ñaari daraba yi nuy dooree ci benn saar la ñëw ci suuratu taxrim di suuratu taxrim ñaari jigéen yàlla tudd leen yoo xam ne nii euh, àjjana lañu jëm ak ñaari jigéen yoo xam ne safara lañ jëm ñu njëkk a tudd ñaari jigéen yi mu wax ne àjjana lañ jëm mu nekk laltaay ci ñu ñëw nag Sénégal ak sunu maam yu baax yi ma tudd wa daraba allahu mathalan lilladina amanu imraata firaun iz qaalat rabbi ibni lii indaka baytan fi ljannati wa najjini min firauna wa amalihi wa najjini min alqawmi aldalimin wa maryama wa maryama imraan allati axsanat farjaha fa nafaxnaa fiihi min ruuxina wa sadaqat bi kalimaati rabbiha wa kutubihi wa kaanat min alqaanitiin aha ñaari jigéen ñi jëm àjjana ñan lanu ki ci njëkk mooy soxna firawna siñ doon wax aasiya dafa sëyëg ku yées ku tudd Firawna moom mu nekk ku gëm yàlla waaye boroom këram gëmadi yàlla am fit wu toll ni taxaw lancé yàlla defi ci wan ko nekko ko maag yow ñooy bokk sa sées bi ana rabbukumul aala waaye mu sëy ak moom ñaan yàlla ne ko sunu borom maa ngi lay ñaan nga tabaxal ma kër ci àjjana nga musal ma ci firawna ki jëfam te nga musal ma ci tooñkat yi xisaam lu gudd la dañuy tudd loo rek jàll waaye daal yàlla may na jigéen mbaax ci kanamu borom kër gu safaanu loolu mooy bind bi kon yow jigéen boo nekkee borom kër lu mu safaanu safaanu yow fexeel def lu la yóbbu àjjana yow bu ko topp mukk ca safaanoom nga kuy doon sa royukaay bu boobaa aasiyaa ngoog sa borom kër lu mu yées yées du dab firaaw na kon kay yow mënoo ne sama borom kër nii la mel ba tee nga bañ a wut yàlla ci sa borom kër ak sàkku yàlla ëllëg mu defal la ngërmandeem Asiya am na aljana ci borom këram gi nga xam ne nii safara la jëm muy Firawna ñaareelu jigéen ji mooy Mariam doomu Imran yaayu yonent yàlla Isa lan la ko yàlla bàkkee allati ahsanat farjaha jigéen la ju takkoon sëram moo tax yàlla sélectionné ko ci biir jigéen ñi jël miracle tàbbal ko ci moom sunu borom jox ko caractère wa kaana min al qaanitiin ci jaamukatu yàlla yi la bokkoon kon Mariam ñaari leson ci moom mooy yow jigéen am nga royukaay boo xam ne jaamukatu yàlla la waaye ku takkoon sërëm la ba mu dëgër mos sa caaxaan. ma ñëw ci beneen daraba ñaar ñee àjjana yeneen ñaari jigéen ñi yàlla tudd ñu nekkoon ci suufu ñu baax ñu jëm safara daraba allahu mathalan lilladina kafaru imraata nuuhin wa imraata luutin kaanata taxta abdayni min ibadina min ibadina salihayni fa xaanataahuma fa lam yugniyaa anhuma min allahi shay'an wa qiila duxula annaara maa daaxilin laa jigéen ju nekk ci suufu ñu baax soxna yonent yàlla nuux ak soxnas yonent yàlla luut seen borom kër nekkoon ay yenent waaye ñu nekk ci suufu yenent yooyu ci ron yenent yooyu noonu le trahir leen sunu borom nee na fa xaanataahuma boo demee ci mufassiruuna yi wax nañ lu bari ci nan la ñu trahiré seen borom kër ya waaye li ma ci yitteel ndax du lu ñuy yaatal mooy ñaari jigéen ñu nekk ci suufu ñaari yënant te buñ faatoo safara lañ jëm yàlla mu ne falam yuxniyaa anhuma min allahi shay'an dara jëriñu ñu ko yàlla ci nekk gi ñu nekk ci ron yenant yàlla yooyu noonu le jëriñoowuñ ca dara ci nekk ci ron yonent yooyu moo tax ëllëg lan la ñuy wax lan la leen di wax wa xiila duxula naara maa daaxiliin yéen soxna yonent yii dugg leen safara ànd ak ñi fay dugg kon yow sa borom kër lu mu baax baax lu mu sell sell nay yonent nay waliyu nay xutbu zamaan nay sëriñ nay imaam nay ustaaz nay qualité bu mu mënti doon ci ñooñu nay président ba nay nangam nay nangam bu fekkee ku baax la ku ñuy royee ci moom baax ku man ci doon moo tax ma tudd ñi ma mujj tudd te yow mi nekk ci ronam defoo lu baax ëllëg sunu borom safara la lay yóbbu kon ñaari dara baa ngoog yu nuy dooree walla ne yow jigéen góorgóorlul ci mbaax jaamul yàlla sàkkul ngërmandeel borom kër soo faatoo àjjanaa ngi lay xaar léegi jigéen ñi nga xam ne nag esprit bi nu am mooy roy lu baax bu ñu déggee lii dañuy jéem a bokk ci jigéen ñële muy Asiya ak Mariam mooy too bokk ci jigéen ñii di soxna si yeneen ci yàlla nuux ak soxna si yeneen ci yàlla luut ku ci nekk ak la mu daan def buñ ko toppee émission bi day jeex xam nga tudd naa ñooñu ñu jiitu la ñu yàgg léegi su ma tëbee ñëw Sénégal romb naa jigéen ñu bari ci seen baax rasulullah ak soxnaam yu baax ya rasulullah ak doomam yu baax ya koo ci tudd rek doy na émission mhm. koo ci tudd doy na émission wolof day wax ne kuy wàllu yaani sa dëkk tëggul kuy sa dëkk tëggul boo jëlee wax jooju dugal ko ci biir lii ñuy waxtaane jigéen jooy roy yow te nekk ñu jigéen ñu jiitu woon ca mbaax gële ak ñii ci sa réew ci roy mbaax gi wax dëgg fa yàlla daa fekk xamoo jigéen ñi ak la ñu taxawee xamoo jigéen ñi yeeg lanu taxawe léegi nag nëbb gi nu ma gën nëbbu jigéen ñi fu ñu toll naan talaatay ndeer talaatay ndeer loolu lay xeex loolu na ku mu neex danaa ko dénoncé ku mu naqari danaa ko na ñu bàyyi fu la 8 mars jotee ñu bëgg ñoo jël talaatay ndeer sang leen teg leen ci kaw taabal ji bëgg a wan ñooy royukaay yi yéen jigéen ñi a ah, am na yoo xam ne dañuy tudd rek jàll ah jigéen de moom war na mën a bañ lu bon ndax am na fi ñu jaaru ñoo bañ lu bon a taxoon ñu xaru wala ñu rey seen bopp ngir bañ ku leen def loolu bon rek jàll paa nag nga bëgg a jël ñooñu nag teg leen ci taabal ji tout le bëgga bëgg a wan ne royukaay yaa ngi nii déedéet fa ñu mujjee xaru la bañ lu bon def loo gën a bon waaw léegi nag yooyu buñ ko bëggee jël di ko samp tout le temps da ngay jël jigéen ñii mooy bëgg a tudd nag teg leen ci taabal ji foog ñuy comprendre fan laay tuddee ñële du dama wax ne ñu bon lanu ñu dem safara lanu déedéet dafa am ay féministes yu jóg tout le temps ñoonuy bëgg a jëlal noonu teg leen ci kanam wane ne bañkat jigéen ñi kon yàgg nañoo bañ bañ bañ te tout le ma leen yéene tamit arrête senegal jigéen ñuy nangu ñu def ak jaloore ñi ngi fi ñoo xam ne nii mën nañ leen di tudd jigéen ñi di leen roy fu ñu toll aywa ñu door wit yi ci maam Adama Aïcha sëñ Mor ndeysaan maam Adama Aïcha mooy yaayu Cheikh Oumar borom këram moo doon mam maam Saidu Ba maam Saidu Taal maam Saidu Taal moo doon borom këram xisaam lu gudd la soxna soosu waaye li la ci mën a fàttali yow jigéen nga roy ko mooy bis borom këram ayana ci moom bay dem ci wujjëm lii boo demee ci téere bu tudd aljawahiru wa durar fii siirati cheikhil haaji umar di ko fa fekk bi borom këram di bëgg a ji ci wujjam dem ba dugg néegu wujjam woo ko pour mu indil ko deram ci néegam néegam la aye bàyyi fa deram dem di aye ji ci néegu wujjam woo ko pour mu indil ko deram lesoob charia ngi noonu lesoob charia lislaam mayul góor mu aye ci néegu aawo ba jeexal ayam dem néegu ñaareel dafa jëli mbaxanaam mum fa fàtte wala sijaadaam xanaa soxna ya mayoon ko ko laata waaye buñ ko ko mayul ca bunt ba lay taxaw yootu ji wala yónnee yónnee lam fàtte ci néegu aawo mais mais du duggal boppam jëli ko mam du loolu la def dafa wax soxna si ne ko ne ko indil sijaadaam soxna sa dem jël sijaada ba di ko indi fekk moom Adama Aysa taxaw ci buntu néeg bi gis ne bunt bi tëju na mu ne ah borom këram yónni ko sijaada dey mu koy delloo te indiwu ko joxu ko ko du teggin <laughs> waaye borom këram it tëjoog soxnaam mu koy fëgg du teggin mu posé boppam question ne nan la war a def li xelam mujj dal mooy na taxaw yanu sijaada bi ba maam Saidu tijji mu jox ko ko noonu la soxna Adama Aïcha taxawe yanu si jaada ba mu fanaanee taw ci kawam lu mel ne maam jaara danañ ci ñëw maam Adama Aïcha njëkk a def lu ni mel noonu lay yanoo der ba yanoo ko ko yanoo ko ko ba fajar gi jot bi fajar gi jot góor gi ne kàccet ci bunt bi ne kàccet bunt bi yem ci soxna si ne ko Adama looy def fii fatte woon na ni sax moo ko yónni woon deram mu ne ko ah, sang bi yaa ma yónni woon der bi de ma fekk nga tëju ma ne ma lay fëgg du teggin may delloo der bi du teggin ma ne rek naa taxaw néeg la ba nga ubbi demal ci aljawaahir wa durar mun taga mi ngi liir mi ngi lim ñaan yi ko maam du ñaanal ne ko yal na la yàlla may doom jo ragal yàlla yal na yàlla may doom joo xam ne nii turam àdduna bépp dañ ciy jot di ko limal di ko limal di ko limal ba yaram bi tàng mu ne ko dogu naa ci yàlla ne yàlla dana la may doom ju mel noonu yàlla may na ko doom ja de <laughs> ndeysaan leçon ngi noonu ci topp sa ndigalu borom kër donte nam ko defee tey jigéen joo ko gaaral mu ne munuma ko waaye solo si rek mooy jigéen ju dégg ndigalu borom këram ba ñemewul a moom ba bu ko yónnee dara tudd na indil ma rek ñemeetu la delloo loolu te joxu ko ko waaye wor ma jëm ko jox ak respect bi yegg na ci ñemewul a fëgg buntu sax du ragal comme ragal de waaye wor ma ji tax na du fëgg bunt fekk mi ngi nekk ak borom këram mi ngi nekk ak soxnaam waaye ba koy ñaanal loolu amagul Cheikh Oumar de am naa moom lu jege fukki bant waaye fukki bant yi kan nga ci dégg turam ku dul Cheikh Umar Cheikh Umarul Fuuti radiyallahu taala anhu moom nga ci dégg ñaan nga liy waneeg nangoom mooy Cheikh Umar defa gane àdduna rek indaalay miracle fajar gim gane àdduna yaayam fajar ga rawu ko Cheikh El Umarul Fuuti fajar gim gane àdduna fajar googu rawul yaayam pour mu julli ko meret mi topp jigéen toppul yaa aadama Aysa fuuta tooro am na dex gu fa nekkoon am xorom jigéen ñi ci dex ga lañ daan rootee ndax amuñu ndox keroog bi seexul seex alxaaji umarul fuuti gane àdduna lañ dem fekk dex ga nekk ndox mu neex ak yi miracle yu bari dem leen ngeen tàppe ca youtube la vie et l'œuvre de Cheikh alxaaji umarul fuuti conférence oustaz Makhtar Sarr def nañ ci conférence da ngeen fa fekk sax lu man ñaari conférence yuñ ci def yoo xam ne ci dundu Cheikh Oumar lañ ko def di ngeen fa dégg yeneen ñu wax ko ci yaayam kenn ngoog dem nañ sax ba nettali xisa doonte xisa boobu ñëwul ci aljawahir wa durar ne wujjam woowa boroom këram aya ji woon la takkee wujj wa soxna Adama Aysa moo doon jaay taabal ci buntu këram di kondaane ba kondaane ba mat aslëf mu mu yóbbul ko maam Saidu ne ko ut ci beneen soxna yaay Cheikh ma def na jaloore jooju kon maam Adama Aïcha ku nekk senegaal le marse turam war nay toq sa nopp ñu lay nettali jaloore ji mu def deram boobu mu yanu guddi ba fajar borom këram bég ca ñaanal ko bal dal na ñaan nga dal na bal tàkk na xanaa kooku sëñ moo royukaay la maam Adama Aïcha te ndeysaan xale yu bari tey boo leen tuddalee turam xamuñu ko ndax le 8 mars duñ tudd turam keneen ki mooy maam astawaalo loolu yi dana bees ci nopp gone yu bari maam astawaalo kan mooy maam astawaalo maam astawaalo mooy woy juru maam jaara buso kooku moom kenn du ko laajte ndax ñëpp ko dégg turam ñëpp dégg turam waaye woy juram bu jigéen bokk na ci jaloore ju ji mu def mooy jigéen ju daan yor daara maanaam jàng ba yor daara di jàngale mama sawaalo sëñ Mor dafa jàng ba mu gi daara la yor di jàngale di jàngal ay góor ak jigéen bu daan jàngale jàllaabe lay sol comme colug góor comme jàllaabe góor lay sol jël kaala gi takk ci boppam di jàngal góor ñi di jàngal jigéen ñi ci keppaaru kooku la maam jaaro buso euh, màggee jigéen ju tedd jooju maam astawaalo yemul ci loolu mais njàngale mi daf ko boole woon ak jaamu yàlla ki ku yàlla mayoon mu gudd fan la lu mu néew néew dund na cent trente huit ans téeméeri at ak fanweer ak juróom-ñett maam astawaalo dund na ko mais nee nañ téeméeri at yeeg fanweer ak juróom-ñett yëpp téeméeri at ñett cent huit ans yi guddi gu nekk juróom-ñett raaka dana ko naafila te juróom-ñett raaka yi kaamil la koy naafila guddi gu nekk dana naafila juróom-ñett raaka juróom-ñett raaka yi kaamil la koy naafila ci jigéen jigéen ji nii di yaa astawaalo maam astawa maam astawaalo su nekkoon ca réewu naar yi nga xam ne dañuy bind histoire di ko siiwal def ko ci téere muy tasaaraw kon turam daj na àdduna bépp ni rabiatul adawi turam dajee àdduna jigéen jooju nga xam ne guddi gu nekk mu naafila junni ràkk junni ràkk ñu laaj ko lu tax ngay naafila guddi gu ne junni ràkk mu ne pour rek ëllëg yenent bi tiitaroo ci kanamu yenent yi ne sama xeet am na ci jigéen ju daan naafila junni ràkk loo doo nga tax ma koy def rabiatul adawi ni histoire nettalee jigéen jooju noonu lay palaasu rabiatal adawi boo ca tegoon mam astawaalo histoire noonu lay nettalee jaloore jigéen ju jàng ba am xam-xam yor daara di jàngale bëccëg waaye guddi gi mu lal deram di naafila juróom-ñetti raaka kaamil bi lay naafila mu def ko cent huit ans nga ne histoire nettaliwul jigéen ju mel noonu te Sénégal la yàlla séddee jigéen jooju jigéen jooju looloo ko mën a may doole leer googu moo ko mën a may mu mel mu am doom ju mel ne maam jaaro Buso maam jaaro Buso am seexul xadim di Sëriñ Tuuba mam Asta Waalo mi tey lii ma wax nii bëri na sénégalais yoo xam ne ay junni junni yoo xam ne lii tey la toq seen nopp te lii du lu ma inventé de dañ ko bind mi ngi ci histoire pourquoi jigéen ñi duñ ñu ko nettali bu la 8 mars jotee jigéen ñu jaamukatu yàlla bii di woy jur maam jaaro Buso ki kenn la mënoon nga caa wax lu bari ñu doy loolu jëlal maam faa wàdd wele maam faa wàdd wele moom i kenn du ko laajte mooy woy juru maam Cheikh Al Hadj Cheikh Al maam faa wàdd wele laataa yàlla di ko booleek maam Ousmane njëkkoon na am ñaari sëy yu mu jóge ci la dogg ci dundam ne li des ci dundam dafay takkaayu dem ca daara ja daara fereera mam Alpha Hima Yoro Wele lan lay liggéey ci daara ja moom maam Fawade Wele mooy yërey taalibe yi bu tilime mu jël ko fóot ko bu fajar jotee mu gàddu paanam dem ca teen ba ndaayu daara ji yëpp mu rootal ko xale yi li ñuy naan sangu baleel leen daara defaral leen li ñuy lekk mooy dem bojji mooy soq mooy defar cere tegal ko ndongo yi loolu rek la mujjoon volonté wu ci dundam ne li ci des loolu lay def loolu def na koy at ca daara jooju la ko mam Ousmane fekk mi wayjuru Cheikh Al Hadj Malick am lu yàlla wonoon maam Alpha ci digganteem ak maam Ousmane ci gàttal xisa bu gudd la waaye yàlla mujj na dogal wala réew sëy ci seen diggante ñoom ñaar mam Ousmane ak maam Fawade Wele yàlla dogal li mu dogal laata Cheikh Al Hadj Malick di gane àdduna maam Ousmane dëddu àdduna waaye pour wax la taxawaayu maam Fawade Wele gis nga bi Cheikh Al Hadj Malick gane àdduna ndénkaane ya nga xam ne Cheikh Al Hadj Umarul Fouti dénkoon na ko maam Alpha ak lépp wees bi Cheikh Al Hadj Malick ci jàng ki ko poussé ngir mu dem jàngi taxaw ci mu jaral ko lu ne yaayam la. li wolof di wax ne lëg bu lekkee alom na ko gërëmee coy Cheikh Al Hadj Malick aliwaam bokk na ci ki ci gën a participer pour aliwa jë dëgër mu xam li mu donn pour man ko yanu mooy yaayam maam Fawade Wele ma nettali ci benn xisa maa ngi ko déggee ci Seydou Wele yàlla na ko yàlla yërëm mu ne bi Cheikh Al Hadj dafa jàngi ay at mu nekk ko ci àll bi di jàng gisul mu dem daal ba lu ñuy jàng ci téere mën nañ ne peeg na ko ba yaakaar ne léegi yeewi nañ ko ñu yeewi ko mu war a dellu ñibbi keroog bi mu yenoo ëmbam wala valisam ba jub gaaya mi ngi fekk maam faawaat de wele mi ngi ci biti dëkk bi am lu muy def ñi ne bojj wala mu nekkoon ci teen wala lu ni mel bi mu gessoo ba séen Cheikh Al Hadj Malick di dox di ñëw dafa yaramam dafa mel ne lu daw mu xool ko settantal ko ne Ousmane de daa dundatul waaye a séen muy ñëw bu usmaan doon dund ma ne moom la ndax niroo gënu niroo nit ñuy doxee waaye mu koy seetantal di ko seetantal ba gis ne Cheikh Al malik Malick la Cheikh Al Hadj Malick na kontante gi ma am bi ma gisee sama yaay mënu ma la wax nu mu mel waaye bi ma nuyoo ma nuyu ko li ma njëkk a wax mooy Malick loo fi def ma ne ko ah yaay damaa jàngi bañ yeewi ma mu ne ko malik diggante bi nga demee jàngi ak tey am xam-xam buñ lay yeewee xaju fi sa tànk boobu bu mu fekk si moroomam dëppaatal nga delluwaat yaa xam fooy dem nga dem fa ngir uti xam-xam Cheikh Al Hadj Malick na keroog mayuñ ko potu ndox dalaluñ ko gaaya noonu la na mu jubee dëkk ba noonu la dëppaatee dem laxasi yokk ji xam-xamam jigéenu royukaay ngoog xam nga kii du wax doomam ne ko doo dem daara sama doom du dem daara tey ñaata jigéen ñooy xuloog seeni borom kër ci sama doom du dem daara te ñooña kat buñ tuddee maam faa wadde wele ñu ne iskay te yaguñ ne maam Cheikh Al Hadj Malick mi ñuy ndaboo xam-xamam bu bari yaayam maam faa wadde wele daf cee participer lu baree bari ngir xam-xam bi am mhm. yamu ca de mais ku daan muuru moom maam faa wadde wele ba dem na ba mbiram yeggoon na ci muuraayam mos nañu mos nay rooti ànd ak i moromu jigéenam ñu ñëw ba ci dex ñu war a xuus dex gi ñu bari ci jigéen ñi wax seen yére seen sër takk comme ni ko ñenn jigéen ñi di defee ngir bañ ndox mi tooyal ko mais maam fa wadd wele def ne jomb na di wax sëram donte moromi jigéenam kese la nekkal mais jomb na ko noonu la xuusee ci biir ndox mi ay sëram tooy Hmm. looloo ko jural bi mu faatoo li mu ma nam meloon ci jaamu yàlla de ak julli ak jàpp ndax damay résumé bi mu faatoo am na xeer bu mu daan toog di jàpp xeer ba bi maam Fawad faatoo bokk na ci karaama yi am ci xeer xeer ba mooy mooy miracle dañ ko suul xeer ba déplacé wu jugee ko fa mu daan toog di jàpp ba ci bàmmeelam ba léegi boo demee fekk ko fa <laughs> royukaay ngoog jigéen ju volonté wu dem dëkk ak daara ja dëkk ak ndongo ya di foot seeni yére di leen rootal di leen toggal di leen baleel ku am jigéen ju mel nii war koy fesal ci bis yu mel nii maam faa waadde wele yàlla na ko yàlla fayal maam jaara buso jalooreem dégg ngeen ko ba tey sàkket waa ca gën a siiw ba mu téyeloon maam Mor Anta Sali lu me dafa correspondre ak Cheikh El Hadj woy juram ci der ba mu téye woon maam fa maam Jaara Buso ca sàkket wa mu téye woon lu ci nekk mi ngi tënku ci téyeloo nañ ko sàkket waxuñ ko ne ko bàyyil mu taxaw yor sa sàkket wa ngelaw la di upp ndox ma di dal ci kawam waaye bàyyiwu ko bu boroom këram ñëw lum ko jural mu ñaanal ko ñaan goo xam ne nii bu doon euh, fetal la dañ ñaan bal ba tàkk na ñaan nga dal na yamu ca de soxna jaara soxna jaara maam sëriñ tuubaa bi mu ganee àdduna boo demee ci minanul baaqil qadim minanul baaqil qadim mi ngi nettali ne sëriñ tuubaa nee na bu bëggee naafila guddi wala mu tàmm ko di ko def yaayam mam jaara buso moo tax mu bëgg ko ndax fu mu tollaan daf koy nettali ñu baax ñi jiitu woon nañu naan naafila guddi di taxaw di naafila ba loolu moo ko jural mu xemem bëgg a jaar ci yoonu ñu baax ñooñu di naafila guddi di ko nettalil istuwaaru ñu baax ñi fi jaaroon di ko ko bëggloo di ko ko xemem loo jigéen ju toog doomam tuddaloo ko ay woykat ak i fecckat ak i waaye ñan nga koy tuddal ngir mu royleen leen jullikat ya woorkat ya naafila naafilakatu guddi ya ba sa doom xeme ma bokk ca ñooña maam jaaraangoog soxna jaara maam Mor Anta Sali mos na bëgg a naan kafe jamonoy nawet la mattam tooy taw bee taw ci kaw matt mi te heure bi mu doon defaral borom këram kafe ngir jox ko ko jot na soxna jaara waxandeem la jël mooy valis ci jamono yi ci ñi xamul waxande yulli ay yëreem ya ca nekkoon ndax waxandew dénk la dem jël semmiñ xar waxande wi dem boyalee ko ngir tàngalee ko kafe jox ko maam Mor Anta Sali moom la woykatu wolof bi ne soxna jaara mos naa jël ab semiñ di xar gaalam ndeke booba day bëgg a tàngal kafe bégal sëriñam bëgg tàngal kafe bégal sëriñam tax mu xar gaalam hmm. bu doon jamono jii la gaal ak na mu amee woon valeur dañaan mooy arme dose douze sa armoire dose battant nga jël ko xar ko ngir heure bi nga doon defaral sa borom kër kafe jot sa matt tooy nga xar sa batan loolu lay tollool lool tey waay <laughs> ñi am doom ñi àdduna yépp bëbb uti leen la <laughs> ñu daj ba am ko ku ko xam danga xam ne la seen doom am la ca fes la ca fesula ko ëpp fuuf waaw noo mën a amee ku mel ne maam jaara buso ak jalooreem ji doo ko jël présenté ko jigéen ñi teg ko ci seen kanam pour ñu roy mbaaxam gi ci déggal seeni boromi kër waaye ñii seen mbaax gii dafa déranger ñi bëgg a tënki jigéen ñi ñàkk loo leen kilifa moom loo leen seen bopp moo tax duñu tudd ñi maanaam duñu valoriser mukk jigéen ju jigéenu sëykat ci kanamu jigéen ñi ñu bëgg ñu doon ñoo xam ne nii ay femme d'affaires la ñuy doon ki euh, nangam nangam moo tax bañkat yi rek lañ leen di tuddal waaye bi jigéen waree doon jigéen pour préparer boppam pour doon yaay pour doon kat pour doon kuy tabax société waaw ñii la doon déglu ñu koy wax ay jaloore mu jéem a seet lan la mën a jël ci ñoom roy ko waaye ñu ñàkk kilifa ñi nga xam ne dañoo bëgg a ñàkkaloo seeni moroom kilifa nag duñ bëgg ku leen di tuddal ñi maam jaara buso yàlla na nu ko yàlla fayal maam ku mooy woy juru maam limaamu lenn lañuy fàttali jigéen ñi ci dundam mooy da daan togg ñam yu bare baree baree bari di wër di ko séddale ay dëkkandoom di wër di ko séddale ay dëkkandoom maam kumbandooy way jur maam limaam jenn jigéen ci senegal ju am doom ju Sénégal gépp xam di ko ndamoo yaayam joxekatu ñam la woon ba ñëpp ràññee ko ci maam kumbandooy way juru maam limaamu mën na doon exemple ci jigéen ci doon joxekatu ñam jigéen ju ñemee dugg ci waañ togg bañ ko yemale ci njabootam ak woy dëkkam ci biir kër waaye dëkkandoo ya mu dëkkal yépp ca gox ba mu nekk ràññee woon nañ ak toggam ñam yu bari wër di ko seddale ay dëkkandoom yàlla na nu ko yàlla fayal maam assu jànq mooy yaayu Cheikh Al Hadj Ibrahima Niass mi may tuddee borom taalibe international yi loolu ko yàlla defal Cheikh Al Hadj Ibrahima Niass mooy borom taalibe international yi ku nangoo ku bañ yàlla def na ko ba noppi de ku bëgg a noppalu nag dangay ngay jéem a laabal sa xol nangu li yàlla dogal dana la dimbale sa xol biy féex. Sénégal gii ku nekk sa cër ku ñuy waxtaane cëram rek nga fàtte cëru moroomam loolu la yàlla defal Sénégal ci ay maam yu baax waaye Cheikh El Hadj Ibrahima Niass boo yegsee ca moom ci ñi mujje ñëw ci maam yala bokk waaye jalooreem dafa wër àdduna dafa wër àdduna li mu am taalibe ci biti kenn ci senegal amu ko wala bu amee xawma ko ca xeet yu wuute ci àdduna bi ngay dem fekk ñuy wax ashhadu an laa ilaha illa wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kan moo tax ñu koy wax cheikh alhaj ibrahima ñas baay mhm. kooku nag yaayam asu jànq kañ doon wax yaa asu jànq yaayi baay si gil sa añ bi sotti naa waaw allahu waahidun qahaar ki lay boroom kun fa yakun mam astu jànqa yaayu baay si gil sa añ bi sotti na lenn laa lay nettali ci dundam bi mu nekkee maam Abdullahi Ñas day magum yàlla di doomu daara waaye yàlla dénk ko woon wërsëg bu mën a dugalee maam astu jànqa ci néeg bu sennul ba nee nanu astu jànqa nekk na ci néeg muy taw mu jël ay ndabam di dëkk muy senn soxna si maam abdallah fekk ko faak coono bi muy daj ci fomp ndox ak dëkk ndox ma mu ne ko muñal muñal lii sa njaboot danañ la ci génne <laughs> jigéen ju nekk boroom këram di muñ néeg buy senn jëlal sa xel nga yóbbu ko ci yi des yépp jëlal sa xel nga yóbbu ko ci des yépp mam Astou Diankha mam Abdullahi Niass néeg ba nekkoon bu taw jotee day jël ay paanam ak siwoom ak ndabam di dëkk jël morsoom di fomp ba boroom këram ne ko lii ëllëg sa doom ñoo la ciy génne yàlla may na ko doom yoo xam ne ca biir doom ya jëlal Cheikh El Hadj Ibrahima Niass tey ay sëtam ci ay immeuble la ñu dëkk di dawal oto yi dàq ci àdduna kenn mënu ci dara ndax maam ñaan na ko maam liggéey na ko maam Abdoulaye Niass ñaan na ko maam Assou Diankha liggéey na ko jeex na pourquoi ñu jël maam assu Diankha teg ko ci kaw taabal ji wan ko jigéenu àdduna bi ci la 8 mars ci muñ déggal boroom këram doy looli mu am doy looli mu am maam Assou Diankha yàlla na nu ko yàlla fayal ñu ñëw ci Fatou Gaye waaw ah, Fatou Gueye ndeysaan seet tët tët tët Fatou ci ñi mujj la moom ci mille neuf cent yi la mën nga ne ci mille neuf cent yi yàggul mill neuf cent nangam jàppuma exact ban at la gane àdduna sama yaay maa ngi fàttaliku yàlla na ko yàlla yërëm mu may nettali ne mas na gis borom këram aas gay waaw mas na gis borom këram aas gay waaye gisul uh, gisul faatu waaye gis na borom këram loolu yàggul mille neuf cent nangam la jigéen jooju rek doyoon na mois de mars bu ñëw ñu jël ko teg ko wax lan la doon muñalee borom këram ak nan la doon séyee asga yi dafa nekk ak soxnaam Faatu Gay ba mu génn àdduna mu defal ko marsiya defal ko taalif ca biir taalif ba mag naan faatu ñëw na ba dem kenn xàmmewul xejjam ak seenam mosee su ko atte xeex daawul xuloo ki maasam mu ne faatu ñëw na ci àdduna ba dem mhm. amewul amul woon ku mu naan kii ak kële koo jël naan kii soppeem laak noonam mu ne xàmmewu leen kenn mësu koo àtte ab xeex mësul xuloog moroomam waxul moom de waaye moroomam mosoo koo fekk muy xuloog moom mosuñ ñëw naan faatu noppil diw noppil mu ne mosulaam mosuñ ko àtteb xeex mu ne daan naa xëy dikkale ko di ko nattoo ko seetlu ba nga xam day ngis sëlam yàllaa ko bindee noonu faatu di ma dabu di ma dawal comme muritu Baay Faal ma di ko teg muy tegoo ba mu rusati koo xool <laughs> ndeysaan mu ne dama daan xëy rek léeg ne xaaral dama bëgg a xam faatu nii mu mel day ngistal wala jikkoom la ma xëy dikkale ko dikkale mooy bu ñu ne ñuul na nga ne dafa weex buñ ne xonq na nga ne waaye dafa ñuul waay buñ waxee nga yuuxu gëdd jànni loolu mooy dikkale xëy rek mel nu kenn xamul naqari rek as gay mu ne daanaa xëy dikkale ko di ko nattoo ko seetlu bëgg a xam day ngistalam yàllaa ko binde noonu waaye nee na faatu day ñëw bu ma meree gëddu ko jànni mu naan ma baal ma lu ma def nee na di ma dabu di ma dawal comme muritu Baay Faal comme Baay bu gis sëriñam noonu muy amee respect ci sëriñam mu ne faatu noonu lay meloog man nee na damay mujj sax damay am kerse dootuma ko mën a tee xool waaw faatu di ma dabu di ma dawal comme muritu Baay Faal waaw comme muritu bay Faal nee na ba ma rusati koo xool dootuma ko mën a tee xool ndax euh, kerse gi may am ci dikkale gi ak moom ni mu dikkee ci dawal ma di Euh, jéggaloo ko tuubala ko dabu ba ma rusati koo xool mu ne fatoon na ma fat saay mbokk lii wóor na saay nawle naagu woon naa naqariw kër nekk yàllam njuuy la mhm. mu ne faatu daf ma fat téye ma lu ma am muy mbokk yi faatu téye ko mu ne yaakaaroon naa ne du ma mën a am soxna su ma déggal ak gu ma déggool ndax ni ma mel waaye dekkete yàlla daal njuuy la léeg nga yaakaar ne dara mënul am rek fekk loolu mën naa am faatu dafa ñëw ni ma compliqué ni ma jafee ni ma méttee yaakaaroon ne yàlla mënu maa dajale ku ma comprendre ma dajeeg jigéen joo xam ne nii moom daf ma fat fat samay mbokk mu ne gàtt gémmiñ ñeme kumpa wuuteeg man ci waxtaan maa ko magoon yilif ko mais daanaa roy ci moom mu ne faatu ko gàttoon làmmiñ la ku ñeme woon kumpa la mu ne daawul wuuteeg man ci waxtaan faatu mbedd mi mën nay toj li ñaan daw leen seetaan faatu du jug fi mu toog ndax ñeme kump du dégg coow dégg wax dégg ñu naan kaay xool ba mu jug fi mu toog déedéet la muy nekk lay nekk loolu du ko yëngal ndax ku ñeme woon kumpa la ni mu gàttee làmmiñ noonu la gàttee tànk mune ne ñoo wax nag ba werante ma wax dara mu ne ma déedéet du noonu mu ne mosula mu ne man maa ko magoon maa magoon faatu yilif ko di borom këram waaye dama daan roy ci faatu jikko yi nekk ci moom dama ko daan roy mu ne billaay ñi njaboote ñëpp buñ meloon ne faatu kenn du ma woo tribunal may layoo ko waatu ñi yàlla jox ñoom ñuy njaboot buñ meloon ne kenn du ma woo tribunal ma nekk fay layoo naan ma sa njaboot gi lu mu def nëboon na ma dayoom ngir fonk kilifteefam mosumaa teg fenn mosumaa teg fenn soxla ngir bañ ma suuxlu fu rëy la bokk maam yi baax la am mais mosuma ko wax mosul yëg ne yi tamit am na lu ma àttanul mu diis ma ko ci soxla mosul am mosumaa di soxla boo xam ne nii dama naan ko ah lii de mënuma ko mosula am mu ne dayoom googu mu ma nëbbu te juddoo ngi yem ci moom ndax deme lay maamam ku saxoo sëriñ Touba xam na euh, ku saxoo sëriñ Touba xam na Modou Wade mi baayam defe naa noonu la ko waxee bu dee ci mbaax rek ci côté dammel ya damelay mamam ci côté côté euh, maam yi tamit ci diine maamam ji ko jur wala baayam ji ko jur boo ko toppee xamees na ko Serigne Touba waaw waa kay ku saxoog malik la waxee foofu ku saxoog Maodo malik xam na Modou Kandji mi baayam ku saxoog Serigne Touba xam na Modou Kandji mi maamam ngoog ku saxoog Maodo malik xam na Modou Kandji mi bayam ku saxoo sëriñ Touba xam na Modou Kandji mii maamam mhm. bu dee côté dammel ya dammelay maamam ci wàllu ceddo ga am na wëy bu dee ci côté diina ji tamit am na fa wëy amoon na lislaam am ngor te bari teraanga rayoon nam xel daana daw yaraanga ko amoon diine la moom Fatou Gueye ku amoon ni teraanga la te bari ko waaye ku daan daw yaraanga la amoon na teraanga daan daw yaraanga yaraanga mooy lépp luñ la mën a yeddee ne la lii waroo koo def faatu du ko def mu ne amoon na taar te du wanu bu doon jigéen ju rafet kenn dàq ko mais mosul wane taaram amoon na taar te du wanu amoon na mbaax gudul ngistal mu ñoon na te du ab dof noppi woon na noppi woon na te soxorul <laughs> ay faatu gaye baax jigéen ju am taar te du wonu du def fu mu toll di puudaroo ka maquillage oo ka poosay xef di wër déedéet amoon na taar te du wonu amoon na mbaax guddul ngistal am na ko xam ne baax na waaye balaa baax rek nit ñi teew mu ne faatu mbaaxam xaarul nit ñi pour wan leen ko mais dafa naturel ci moom ku muñoon la te nekkul daa ñàkk xel de mu muñoon na te du ab dof noppi woon na ta soxorul bari na ku noppi du wax fekk rànkiñe la xol wi dafa xat dafa bon mu ne faatu nag muñ ngeeg noppi gi noonu la xol bi rafetee te yaatu du ko rànkiñe mu ne dara ji ma gis ci faatu góor gu ko am tamaandu jigéen ju ko am tamaandu boo doon góor ñu di la raamal ngay jël ay hidaaya li ma gis ci faatu góor gu ko amoon nee na du yem rek ci ñuy wax sa jaloore nii mais dañ lay sukkal ak raamal mu ne fu ñuy taggee faatu nga ràññee jeeg ju bon ji nga ràññee jeex ju jeeg ju baax ji ñu nga naa tee roy ci moom jéem a mel ni moom moom faatu fu ñuy taggee faatu nga ràññee jeeg ju baax ji ña nga naan waaw ba way wajeex dafa dama tënk njëlbeenu bayit yi maanaam foo dégg ñuy waxtaane jalooree faatu rek jeeg ju baax ñoom ña nga naan ah faatu de moom nañ jéem roy ci moom mu ne jeeg ju bon ja dégg ko ne góor ñi dañoo waane boo yeboo boo yeboo ne tuug boo yeboo tuug te xam ne man kenn gënu maa neexle mu ne bu ko jeeg ju ji déggee dégg naan moo góor ñi dañoo waane dégg lu ci jaboor gi jabar ji mu ne daal tuug laa lay wax man moom kenn gënumaa neexle ndax am jabar ju baax mhm. mu ne faatu daaw ma mànkeel ci biiri gan du gàntu door maa defal duma ma detteel ci biiri wax du tànqamlu door maa wuyu laa ilaha illa allah daaw ma manquel ci biiri gan du gànt door maa defal ay gan du ñu ñëw mukk seet si ma faatu manqué ma respect te na jigéen joo xam ne loolay fooram balaa laa mën a wàññi rek say xarit teew mu ne du gàntu yi door maa defal dama ko sant dara mu ne a ah, lool ne loolu ne man ba noppi am kersa ne ah teema koo def mu ne faatu mosuma koo sant dara mu lànk loolu ba noppi def ko sog di ko def mosula du gànt door maa defal te du ma detteel ci biiri wax detteel ci biiri wax mooy wax dara rek ne ko moo déggal li muy wax du noonu de yow yaa gën a xam nangam na hee la mu ne faatu mosuma detteel ci biiri wax te duma ko woo mu dégg ma tàng xam lu ko ba mu neex ma ba mu neex ko mu soog maa wuyu doo tàng xam lu door maa wuyu <laughs> ma ne ko Fatou gay te newuma Gaye dégg ma bañ maa wuyu mosul am du tàng xam lu door maa wuyu cey Mm-hmm. mm-hmm. dem na ba ne euh, jeeg ju bon ji foofu lañuy daanale dama jël xasida bi ci suuf waaye lu bari la dama ci jël rek yenn nag jeeg ju bon ji daan nañ ko wax lii du mbaax ak la faatu laa jël sa waru ba mu mat bu la wàccee keneen jël la xam naa mooy yenn féministes yi rek ñoo ñu la as gay tuddee jeeg ju bon ji daan nañ ko wax lii du mbaax ak dof la moom féministes yi ñoo dugal ci boppu jigéen ñi esclave sëyu esclave yooyu moom daa xeew yi <laughs> li tax du ma li tax jigéen ñi duñ leen tudd ndax ñooñu pour ñoom loolu ñu doon def mbirum esclave la te ñoom dañoo bëgg a libérer jigéen ñi moo tax bañkat rek la tudd bañkat yi mu ne jeeg ju bon ji daan nañ ko wax liinu mbaax ak ndof la faatu laa jël sa wargor yi ba mu mat bu la waccee keneen jël la faatu ne leen jaay siwuma juddu akub taar fekk siwuma saam nawle ku gis sab sang na nga jaamu lu ko moy nga rawle kaaje yeeg libi door yi ku bëgg ma bàyyee la koo jiitu àllaaxira ëpp ko ngërëm su la fa fekkee naw la loolu la leen daan tontu su ko moroomu jigéen ñi ñëwee naan ko yow nag ni ngay sëyee nii moom xewwi na lii moom affaire esclave la lii moom du mbaax ak ndof la lan la leen faatu gay di tontu dafa leen di wax ne man ñëwuma fi ngir jaay su judd ñëwuma ngir jaay taar sama borom kër sama borom kër du sama nawle xam nga léegi dañ ñaan sa borom kër nawle la faatu moom mu ne borom këram du nawle mais sa ngam la jaay siw ma judd akub taar fekk siw ma saab nawle ku gis sab sang na nga jaamu lu ko mooy ngarawle soo gisee sa sang jaamoo la war man fekk si moom le mais sang laa fekk si ñu dellu na ko àjjana waaw mu ne leen kaajeeg libidoor yi ku bëgg ma bàyyee la bu fekkee yëfu jigéen ñi ñuy ndamoo rek ci ay takkaayu rafet ak i wurus ak yu ni mel yooyu moom ku bëgg rek mën naa la ko bàyyee man sama bët fi ma ko teg mooy àllaaxira te àllaaxira ku la fa jiitu ëpp lay ngërëm koo jiitu àllaaxira ëpp koy ngërëm bu la fa fekkee naaw la man foofu laa teg sama bët cey faatu gay jigéen ña bàyyi wuñ ko de <laughs> heure boo jógee ngir ut lu baax sa borom kër ngir am ngërmandeem am ñu ne la doo ko fi defee ñu dellu ko ne ajjana moom yàllaa ko moom jëkkër mbindaafoon la ajjana yàllaa ko moom jëkkër mbindaafoon la mu ne leen sama baay góor ñi la woon bu daa xutba may déglu lu neexul yàllaa ak yenentam ku ma ca wooma daw la sama baay fóore la woon boroom xam-xam la woon da daan xutba di waxtaan ci jigéen ju baax ni muy mel buy seeg boroom këram may déglu baay joojoo ma yàpp ba lam doon nettali ci jigéen ñu baax ña ak nañu sëyee foofu laa teg sama bët mhm. sama baay loolu ma doonoon di fóore daan wax may déglu loolu mu doon wax ne jigéen bu ko defalee boroom këram am aljana man foofu laa teg sama bët de mais du fii ngeen ko teg mhm. <laughs> dem na ba ci biir ne bët yi ma yaay daa xoole la ma faatu gay daa xoole xëy ci saa ndigal di ca gont lii la ma daa moole mu ne billaay maa ko gërëm ba gërëm naa lu mu xeetool soppi ku naa jaam ci néegu ndeyam ba keroog ñu may goreel mu ne bërë gërëm na faatu gay ba lu taq ci faatu gay gërëm na ko te nag jël na buum takk ci baatam jox ko fami Faatu Gay fuñ ko dëri jëme rek jëmee rek mu jëm fa demu faatu gi ku méttiwul bu ma dee bu ma jaal si bu dee xarit mbaa doomi ndey bàyyi ma bàyyi naa la mm-hmm. dem ba ne demam gi ku méttiwul bu ma dee bu ma jaal si mhm. ndeysaan lu triste la lu triste la lu triste la Mm-hmm. yàlla na ko yàlla fayal waaw ñu tënk ko ci wax jooju rek yàlla na ñu ko yàlla fayal yàlla ko yàlla fayal mbokk yi ku am jigéen ñu mel ne faatu Gaye mii am ngay royukaay fi may daanalee yàlla na ko yàlla yërëm yàlla ñu yàlla fayal Fatou gay ak As Gaye borom këram waaw ak As Gaye borom këram te taarif bi dugg leen di ko dégluwaat di jéem a jàngat jigéen ñi nañ dugg YouTube tàppe as gay faatu gay di ngeen déglu taalif bi su jàppandi woon sa moor danañu ci jëlal tuuti rek ñu déglu ko ndax am na solo taalif as gay faatu gay jigéen ñi nañ koy jël di ko dégluwaat ah di ko dégluwaat waxuma nag ñiy jàpp ne jigéen ju déggal borom këram esclave la waxuma ñooñu ñooñu damay ñaan yàlla mu gindi leen ba ñu dellu si mais yow mi nga xam ne yaa ngi bëgg a wut yàlla en tant que ku bëgg lu baax ndax jigéen li koy may àjjana yenent bi dane bu jullee waxtoo mi juróom woor weeru koram takk sëram topp borom këram ba mu gërëm ko ci lu yàlla gërëm bu faatoo dugg àjjana jigéen ji xam loolu nga xam ne li koy may àjjana bokk na ca mu tarbi yu borom këram man nay dem di déglu woyu aas gay ndax dana ko motiver ah dana ko motive da nga yëg ne koo xam ne nii gërëm na soxnaam ba fa ngërmande yam di wax ay qualité am mbaaxam moo def taalif noonu ci soxnaam soxna Zeyna Fall ci ñi mujjee ñëw la bokk lu gàtt li may wax ci dundam mooy borom këram ba muy dund la ne bu fekkoon caabi àjjana yor na ko ci loxoom yëkkati na ko teg ko ci loxo soxna Zeynab Fall bu fekkoon caabi àjjana moo ko yor ci loxoom yëkkati na caabi àjjana teg ko ci loxo soxna Zeynab fekk symboliser na ko ci yëkkati caabi jox ko ko wane ne bu doon ne caabi àjjana nii la nekkee ci loxoom ni mu joxee caabi ji Zeynab noonu lay yëkkatee caabi àjjana jox ko soxna Zeynab ndax déggal gum ko déggal mosul génn lu dul ne tàggu na ko borom këram ay seede su ko tàgguwaan dem fenn su waree jàdd fenn balaa faa sañ a jàdd dana ko woo téléphone ba ne ko papa man kat dafa am fu ma bëgg a jaar ba mu jox ko ndigal mu soog di ñemee jaar foofu lu mu koy lalal nee na buy lekk mosu koo lalal lii tey suba mu lalal ko ko mosu ko tegal bool bi tey suba mu tegal ko ko waaye sag lekk ak lam koy lalal ak bool ba mu koy tegal danaan xëy dem liggéeyi fu mel ne rajo wala tele waaye borom këram lu muy lekk kenn du ko ko tegal lu dul ñëw na moo ko koy tegal mooy lal mooy defar lépp booleek raxas tànki borom këram toppatoo ba boroom këram seede ko àdduna bépp di ko dégg te noona mu meloon ci digganteem ak boroom këram wàññiwul lenn ci digganteem ak boroomam jigéen ju yiwoon daan muur ay cëram ñëpp teg nañ ci bët doo gis sax mu muuru ba liyam feeñ déedéet su solee yére boo xam ne liyam war na feeñ am na lu muy jiital ba mu toll fii ba du feeñ ndax sàmm ay cëram noonu mu meloon ci biti ci yiw ga biir ga noonu la meloon ci mbaax ga ku tawe lu tegu ci loxoom mu seddoo koog nit ñi waaye naafilakatu guddi ba mu jug dundam ay nelawam dafa yàqu ngir jaamu yàlla guddi ba mu jug dundam ay nelawam dafa yàqu loolu wax naa ko ci benn waxtaan bi mu génne àdduna ne am na ñoo xam ne nag bu seen ruux yeggee fenn fi ba lenn li mënatuñ ko ci noppal seen yaram nag seen yaram dootu ko àttanati waaye jigéen joo xam ne guddi bu jotee ma ngay naafila ma ngay jàng alxuraan ndax nelawam yàqu na ngir jaamu sunu borom subhaanahu wa ak yu bare bari yu mën a nettali ci ay mbiram yoo xam ne yu yéeme la rawatina mu jug dundam rawatina mu jug kon jigéen la joo xam ne nii buñ ko jëloon ci 8 mars bi teg ko wan ko jigéenu Sénégal yëpp ñu roy jigéen joo xam ni mosul jaar ci tànk po mosul fréquenté boîte de nuit mosul fecc sabar mosul dem ci bërëb bu ñuy musique mosul sol zip mosul bàyyi boppam mu nekk ci biti góor di ci teg bët jàng na am xam-xam di sol dàllam di dem ci ay kër di jàngal nit seen diine ba yàlla indi ko ci média conférence am émission yàqul dara ci daaraam di jàngale alquranul karim bu wàccee dem toog ca daara ja di jàngal xale yi alquran waaye loola muy jàngale alquran yàqul dara ci toppatoo borom këram nga xam ne mission ca rajo ba ak télé ba ak conférence ba nam ko doon matalee ba ñëpp ne macha allah bu ñëwee ci biir këram noonu lay futtee ko dem ca daara ja di jàngale téere yàlla bi waaye noonu lay toppatoo borom këram waa jigéen yu am jaloore yu rëy yi yëpp te bi mu fi jógeeg léegi yàggul yàggul ay at yu néew la jaar na ci mbooru jigéen ñu baax ñi ko jiitu woon ci jaamu yàlla ak topp seen borom kër di ñu fàttali ku mel nii ak ñi ko jiitu ñi ma tudd wax dëgg fa yàlla moo gën a yey di ñu fàttali ay maam yu xaru falaay lay dee fa lay am na loo xam ne bu ko maam defee bu dee ku gëm yàlla da nga koy ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana yàlla na ko yàlla yërëm bañ koo topp jëf ja mu jëf xaare ko àjjana fa ngay yem waaye nag doo ko bëgg a doo ko jël nag dëkkee tudd kooka naan mooy royukaay bi bàyyi fi ñii ma tudd ak ñi ma tuddul ñu baree bari xam nga tudd lu ma la yaa Roqiyatu Njaay wooy juru sëriñ Babacar Sy ak jaloore ju moom rek doyoon na émission yaa Roqiyatu Njaay fi mu jaar ak Cheikh Al ba yàlla may ko sëriñ Babacar Sy ci nangoom ca ca ku am ñu mel nii sa dëkk sa dëkk tëgg na ku sa dëkk tëgg nag waroo wàlliyaani kon ñi ngi daaneel di wax yàlla nañu yàlla fayal maam Adama yàlla nañu yàlla fayal maam astuwaalo maam astawaalo yàlla nañu yàlla fayal maam yàlla nañu yàlla fayal maam Jaara Buso yàlla nañu yàlla fayal maam Astu Jànq yàlla nañu yàlla fayal maam Kumba yàlla na nu yàlla fayal soxna Faatu Gay yàlla na nu yàlla fayal soxna Zeynab Fall juróom-ñett jigéen a ngi nii ci juróom-ñett fan ci weeru marse ay royukaay ngoog yàlla yàlla yombalal jigéen ñi bëgg lu baax ñëpp ñu mën a xeñtu mbaaxug ñu baax ñii ngir yàlla man leen a may mbaax goo xam ne day roogalaat ba ci seeni sëtëki sëtaat li lañ leen indiloon ci seen émission axiru zaman di leen sant di leen gërëm ci seetaan bi wasalaam bëri pexeek tànk bu gudd ak barke ooleek alal du tee xëy la tàgge xam-xam bu rëy ci yàlla mbaa ci duniyaa du la fegal bàmmeel yaak laaj yaam